et dañu koy commencé ak mi nga xam ni daa yëkki ay kàddu la monstre reprend euh, di service nga xam ni euh, Bougane Gueye Dany ma ngay naqarlu tëj gi nga xam ne moom lan war a tëj lu ci ñetti fan euh, li nga xam ni mooy Sen TV ak Zik FM nga xam ni nee na décision boo xam ni la ki nga xam ne mooy tribune yëkki décision boo xam ne amul fondement boo xam ne bu jaaroo yoon la ak wal fajjiri quotidien mi nga xam ne ñëwaat na ci sénéra mi nga xam ne daa brouillé li nga xam ne signalu Zik FM ak Sen TV maître Abdoulaye Wade tamit ma nga ca biir xëtum Walfadjri yéen a kaay la mandat tamit ñëw na eh, ci Adji Sarr mi nga xam ne xëtam mu njëkk la mu ca yëkki belli ko ci ay kaddu nga xam ne da koo teg tey ji ngeen jàkkaarloog moom muy wax ni ñu invité eh, maanaam ci li nga xam ne mooy audition bi nga xam ne moom lan nu war a mën a auditionné mu tourné ci yéen mujj doon benegar boo xam ne bu wexxatt lay doon eh, nga xam ni la mandaa ca la ñëw quotidien yéen a ñëw ci remontada bi nga xam ni la yëkkiwaat defaraat ko def ko remontada remontada ba bala muy tekki mooy remonté bi nga xam ne Aliou Ba euh, ki nga xam ne euh, mooy monsieur Amadou Ba euh, war na koo remonté moo wax ni la lourde mission di délégué régional di Amadou Ba loolu la yëkki ay kaddu Sen TV bi nga xam ne danu ko tëj mook la nga xam ne mooy Zik FM moom la l'exclusif yéen a kaay ñëwaat saltan pour les médias nga xam ne médias yooyu ka ca jiitu mooy ki nga xam ni mooy Sen TV bi nga xam ne tey jii moo aaye pop populaire ñëw ci li nga xam ne mooy xëtam mu njëkk gaynde Sénégal yi nga xam ni maanaam la nu yëkki ah, ci kay ay kàddu def leen ci xëtam mu njëkk di wax ne maanaam gaynde yi nga xam ne rëcee nañ seen suubul ginnaaw ba ñu demee fële nga xam ne mooy Qatar